li nga xam ne mooy wàllu faiblesse sexuelle mooy néew kàttan ci wàllu sëy ak gaaw a pare am na ñoo xam ne bu ñuy sëy ak seen soxna dañuy teel a pare duñ ci yàgg ak ñi nga xam ne buñ ñu sëyee benn yoon dootuñ mën a sëyaat ñaari yoon dañuy teel a pare kooku tamit indil lañ leen ci li nga xam ne moom mooy traitement bu baax bu gaaw bu efficace amatul benn jafe-jafe benn sachet ngay jël rek jël sa kaasu ndox daf ci ndox mu tàng jër jël benn sachet bi dugal ko ci biir kaas bi bàyyi ko ba mu sedd képp koo xam ne danga nekk jigéen am problème mu règle douloureuse am nañ ci traitement yu gaax yu gaaw koo xam ne danga nekk koo xam ne danga nga daan am doom sa wàllu amam doom nekk sa jafe ci yow mënatuloo amaat doom kooku dañ ci am traitement yu gaaw. Sénégalais yépp nangul nañ Cheikh Omar Diop li nga xam ne moom mooy baaxaayu ay garabam suñ médecine bi nga xam ne ñun noo ko moom moomal suñ bopp Sénégalais yépp war ci jàpp ñun ñu ciy liggéey kenn ku ci nekk dañ ci war a wane loo xam ne ni nit ñi xam kii kat. kuy liggéey la waaye nekkul kuy naxaate nekkul kuy fo ku ci doonul dara da ngay gis mu xëy tàbbi ca biir métier ma fekk doonu ci dara wala nga yónnee sa xaalis ñu yónnee la garab boo xam ne boo ko naanee mu indi la ay jafe-jafe loolu moom moo tax man may rayante sama bopp pour médecine bi bañ a dee ci Sénégal boo xoolee Sénégal boutique yi nga xam ne euh, def naa ko fii ci réew mi jël garab yi def ko fa wan nit ñi ne leen garab yi garab yi baax la te it garab la pour sénégalais yi mën a xam ne ah lii di suñu métier bi ñu am muy métier ñun ñoo ko moom ñoo ko war a defalal suñu bopp